dal leen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy doore kàddu yi nga xamante ne kii di sëriñ Abib Sy Dabakh daal di nag koy yëkkati moom nag ni ki tey jii rek dafa daal di yëkkati ay kàddu nag jëmale ko ci Ousmane Sonko waaye tamit message boo xamante ne rek doon na ko lancé jëmale ko ci Macky Sall ak nguuram ma ngay naqal bu baax jamono ji nag fitna bi nga xamante ne nag moom lañ tekk kii di njiital opposition bi di Ousmane Sonko moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne Sonko li koy yàlla may may na ko ko ba noppi rek ku mu neex ku mu naqari bu yàlla tuddee na dina jiite réew mi nag gisul mbindeef mu ci mën dara nee na nag bu ngeen gisee ñaari soxna Ousmane Sonko yi nag génn rek di wax la ñuy jànkuwanteel rek ab ronkañam dafa daal di mu mel ni rek kii di sëñ Habib Sy Dabakh taxawaay na bu baax tànki papaam yi jamono ji nag la muy sàkku rek ci Macky Sall ak nguuram nag ñu daal di seetaat li ñuy def ci yàlla waaye nag leneen lu mu ca rek moom sëñ Habib Sy Dabakh la muy daal di yokk ci mbir mu nu mel rek moo di ne def moom mooy yeey xiifal bu fekkee ne rek ci loolu rek la tënk nag moom mooy yeey def ab xiifal ndax ki li nga xamante ne moom mooy kaso nag ku ak faatu li tax nag mu bañ ne moom lay njort ne mën nañ ko def ci lekkam gi nag bés bu ko lekkee rek moom nag la mu daal di xam ne rek moom sëriñ Abib Sy Dabakh moo di ne bu fekkoon ne jamono ji nag mu ngi ci politique ku noon parti bi nga xamante nag fa lay adhéré wu nag parti Pastef lay doon ndaxte gis na ci Ousmane sonk bu dul dara jot naa waxtaan ak moom lu toll ci ñaari waxtu yoo xamante ne rek échangé waat nañ ci la mu gis ci kanamam nag mooy nit ku dëggu nit engagé wu ku am pas-pas ku am diine ku am yëg-yëg fonk doomu aadama moom nag loolu rek la ko daal di eh, seeteel ba tax loolu daal la ko daal di seedeel ba tax na moom sëriñ Habib Sy Dabakh la mu daal di yëkkatiwaat rek ci yooyu le kàddu nag ma ngay ñaanal réew mi jàmm di ñaan ci kilifa diine dellusiwaat ci biir Sénégal waaye nag profité na ci boobu les occasion ñaanal nit ñi màggalu jàmm ak salaam mu ngi ziar ñëpp di baalu yëpp ak wante nag nee na moom bu fekkee ne dëgg ji nag fekkee na ko rek daldi ci maye pat ak organiser rek ëllëg bu demee rek dina ko layoo koy yàlla suñu boroom waral nag mu yëkkati ay kàddu nag boo xoolee ci kanamam sax ak ay xar-xarabam nga xam ne li muy wax nag nekk na mbir moo xamante ne mu ngi ko ñor la waaye nag naqar nag la fees dell ci biir xolam ginnaaw rek injustice